yaa rabbi dam ajjana diggante jannat aga juma sey moxtaar ndaw diggante jannat ku ko saf daafal nii ku ko saf daafal nii diggante jannat aga jumaj moxtaaro diggante jannat aga jumaja lay ku ko saf daafal nii ku saf daafal nii diggante jannat ak jumaaja lay daago diggante jannat soppay Serigne Bassir Ndaw diggante jannat ak jumaaja lay dafa sedd doxin wa daa sell diggante jannat ak jumaaja soppay ya diggante jannat ak jum lox lox lox jonde jannatu aga jumaja laydarol muhtarun min kiyarin muhtar mi lañtano muhtarun min kiyarin ñu dago yàlla ñëpp am jàmm sëñ Muhtar ni may jàppale yàlla la ko yàlla jàppale ndax taxaw nga si sama carrière sa tante yëpp fu ma ñi nga presque si la waaye jàppale gi gis naa ko yàlla la yàlla taxaw satu mbala bi doomi maam sande ne ndaw sangu belal bi del nañ daaru deesal yéene muxtaar fom ñu fopp ñu defeer ñi xaar ñu ba ñuy bayee ñeneen ñi bañ tardeel ñu ndax yéen a gën ci ñun mbooleem rijaalu laayi xol bi yow la nga faqat bi a gën ci ñun mboolem rijaalu laayi yéen a ñuy gënal ku dul rasulu yéen a gën ci ñun mboolem rijaalu laayi yéen a ñuy gënal ku dul rasulu laayi Seex a gën ci ñun mboolem rijaalu laayi yéen a ñuy gënal ku dul rasulullahi ma wax la melow bind faarox ba moom ko def koyem toray melow yoneen bi nekkul di njool tey sut rabaatu la sewul ne roj rëyi litim ko bind la ku jag sikkiñ te faas ya jag saxul ja ku yaatu ay jànqaay ni roog yoneen bi moo fi jëlee jikkooy si ndiix yi jëlee fi naaféq ak yeneen yu soof yi moonu hubil xol yi jubanti jikko yi jox ñu yeneen xolom yu dàq mele yi baabu nee na moo ko digal wirdu digal ko yis bu barkeem ba maas ko yàlla far ko jas bu baabu nee na moo ko defal ijaasa wa ko mansoor doomam ju baax ji yàlla na nekk max foor xarif loon waa ja waa jaamal bi laama laama fa mu toogoon fa daara Ibra soxna la yàlla def naa la doomi soxna xelantoon yàlla boon fi Mansoor ndax ko juddoo dikkee ñu ndey joor billaayi xelantoon yàlla boon fi Mansoor ndax ko juddoo dikkee ñu ndey joor jaaloo laaw min ali janna wa kullu muminin wa kullu mumin satu mbala bi waaye ne leen nii ci satu mbala bi doomi maam sandeene ndaw billaayi jox ñu lu seex joxoon muhammad xaali mbaa lu ko mel ta nga yëg na yéen lañ faale ñun ñi nga ànd ak kuréeli wañi laay bu def si ñun yaakaar di jëf li laay ñaanal leen yi buur yàlla ñu am xabool barke xam ajal ñu am wasoo la gaa sëriñ ku dul yónneen bi yaay seen imam hajaban li rabbi ndaw ku ndaa yow demoo ci bàyyi kenn naan ko aslamto na bee ko yar lii dugul fa lemtu demal nga yër yow aqitul farahidi wa rabba abdaka mina sawahidi yaa uutu fi uwaysu ak moroof tuwa uutu ak moroof tayfoor ma foofu mooy kuutalal xasaali aboosan moo wuutu tey xaadim di yaa di saamin koo mën a am jëlal wala ubaali sey ko omar moo ma gënal koo faale moo tax baabu nee na lii ma ci moo di seydil wujood da ko ngëp ngir ga moo ko doon bésu tey loolu war na mooy xabaro kooku mooy sa maam ba may maana jëf fama sa baabu nee na lii du njortu ndax dafa wér ko gëmul na ñëw daanu laaj teg ci déglu kon da xam mbiri sun sëriñ Omaro taxa jërëjëf ba may mën a jëf fa ma sëf samaam ndax no ab xaarif mën a mel ak tariqa boo mën a ne Seex Omar nandal na la leer mbaa doo naan la dul hadaro taxa jari jëf mën a jëf

ndaxte ñoom naa nañu sax xar na fara do lan la ca doon pexe ci moom la perte ci moom waajo bañ dajeek fiiteru insiyun kafoor lañu ñoom nekk mun karoona ba daaj bi ma wax jullum lal jëmi afal tasiru benn xaaj ci junne bi xaaj ci ngëmam walla ragalam mboolem jaam ñi saxaamu ko wóor na koy borom ni siiro waaju weddi ma di wax bàyyi leen ko moo tajabun lum siikar siikar abada dootu gis lu mooy hadaro yow mi soxla wir dawir tey yi ndem texe la tax di kaw gaawal daaru nda xalifa aji sos ja mooy omaro xéemu leen mbiram xéemu leen mbiram def na jaahilan def na jaahilan ay def na jaam horan def na baadiyan natt leel ma jaam dafa dajeeg jàmbur kon maqaama ba doonal xurri fo billaay waaju beeg lii waa na ko musaafol waajo beeg lii waa na ko musaafol ey jubloo naa ca gaa ñey mbiram ey loolu la yàlla def loolu la yàlla def ah loolu la yàlla ku mu neexul xaada loolu la yàlla def ku mu neexul xaada ay loola yàlla def ku mu neexul xaada qul fi saabiqul helmi doona sanni fa tabira bàyyi muntaxa yaama yar ba may waaw waaw sa waaji moom mosta nangu kenn ci kenn dalay defar bàyyi la nga dem baati seet rek la laaj foo boo ñibil fajaro bul ko taagu sax la laaj geesul hutul daraja mbir yonen bi lay yal na mat barke boomaro bu tukki dalal ku dukki toogu añ jafer doola war waa na foofi dal dangañ tay ko haaye Seex Omaro yaa ma yar ba may mën a jëf démbu woy na lañu ne xal xamuñ ca ñoom ndax newuñ ca noo ngi raasi leen Sëriñ babuza khomom daratam saaxo moom deretam ak ñaqam wi ak xalalam mu datal xayaati lépp lew na Seex Omaro waaw waaw bul xalaata bul sikkitam soo gëmul bay mama way yal na yàlla rey ma ci barke sun sëriñ Omaro wana man homar la ma nga duma ko bàyyi bi abada ku nga bul ñu dem bàyyi la dooñi jot ma daadaaro yaa murido fastami an taa nga déglu kon danga xam ndonga nga yaag sëriñ bi nga ngëb ndonga ngeen ji Seex Omaro yaa ma yar ba may jëf donte moom mu jiit fa fi gën ndax rijaal yi too dosu kenn koñ ne moom dégguñ ko fi fenn fenn dil ni siroo yaa yar ba may mën a jëf ndaw ku ndaa bi tey ma ko taas moo fe ooto seex ma ca faas ñun ñoñam ñi am nañ saas raasi leen sëriñ ñoomaro yaa yar ba may mën a jëf bàyyi murtada ak googo góora doon sunniyu moo fi uutoon nabiyu loolu war na fa tabiro yaa may mën a jëf muntaxa sa moom nga uuto daay niru ne moom nga rekk maa defe jot nga xaalu si xomoro yaa may mën dégg nañ ci géej ga nga jaar booru Gàmbi ñépp la waar xooti géej ga way ci la wóor loolu moo daje xadaro yaa ma yar ba